salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biiram ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo fii ci Daaru Minam fii ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir fii nga xamante ne bii fii la Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, nekk tey jii njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall fekk si ko fi ngir indil liggéey bu tedd bi nga xamante ne bii moom la ku tedd ki santoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridine te mooy tabaski yi nga xam ne xam ngeen ne at mu jot njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall dajale lu takku indil ko ki nga xamante ne bii tey mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax ndigal loolu ku ne xam ne ne ku tedd ki moo ko santoon ci njëriñ boo demee ci histoire taarix day nettali Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall mas naa bind lettre sëriñ bi jox ko ku ñu wax Baye Lamine Diop njaxeer na ko yutal ma ko ku tedd ki ba mu demee na wal bit dem se Baye Lamine na ko damaa bëggoon wax la li ci bataaxel bi ndax boo demee bu la ko ku tedd ki laajee nga ko koo jox ndax ku tedd soo ko masaana euh, jox euh, lettre da laaj na la lu luñ ca bind loolu la Cheikh Ibrahima Fall wax loolu boo demee ci waxtaane sëñ Bay Ngiraan wala mag ñu bëri da nga ca da nga ko ca déggee boo ko masaana jox bataaxel dana la lay wax na la lan lañ ca wax mu ne boo demee ne ko ndax sëñ na maa tabaski ku tedd ki eh, jox ku ndigal na ko bu ngeen demee leen Ibra Fall ne lu fa ne ciy xar na ko dàq indil ma su jógee jullikaay lu mu fa fekk rendi ko loolu mooy ndigal li nga xam ne tey kenn ku bokk ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ko sañar yeew am tabaski tëdu da ngaa jox sa sëriñ am tabaski ba noppi amul loolu ndigal la loo xam ne ku tedd ki moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima ci njaareem moo tax nag Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee woon ko ci nag eh, di dajale xar yi ci ab lim di ko indil sëriñ bi nga xam ne fii julliwuñ ba noppi dara daawut mën a tëdd biir këram ndax amutoon ndigal ci lu mel loolee loolee nag ba mu fi jógee maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bàyyi fi Cheikh Moudou Moussa Fall ñaar fukki at yooyu mu fi toog nekk fi xalifa ak Cheikh Ibrahima liggéey boobee dafa daan dajale ji mboolem ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Ibrahima ko sañ mboolem ci taalibe yi mboolem ci seex yi nga dajale dafa nekk lépp yóbbul ko fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim noonu lañ ko toppee ba ci tey jii ki nga xam te ni moom mooy Serigne Cheikh jëmm yàlla na fi yàgg lool te wér ren jii rek juróom benn téeméeri xar la indil Cheikh Mouhamadul Mountakha juróom benn téeméeri xar ci xar yu mucc ayib nag xar yoo xam ne ay xar lay doon waxoon naa fi ne bokkut xar yi nga xam ne dañ naan la yeewal baax na booy bàyyi muy nampi déedéet xar yoo xamante ne bi lu mu gàtt gàtt am na ci yooyu million bi dana teg lu mu gàtt gàtt am na ci eh, eh, yooyu la eh, ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall bi ko nangu bi ñu tënk ci aw kayit su ko tënkee ci aw kayit ñëw jébbal ko ki nga xamante bi mooy sëriñ Touba Cheikhul Khadim sama borom dogal nag moom daal di bu ko nangoo eh, daal di koy daal di jot nag kàddu yi cant yi ak ngërëm yi nga xamante ni bii moo bàyyi ko ci Serigne Cheikh jëmb ci ndaw yi nga xam ne la yebal na leen muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng Serigne Saliou Fall Fat Sow Serigne eh, Cheikh Assou Ndiaye mu Serigne Mour Moustapha Fall ak mboolem njaboot yëpp itam Serigne Falilou Fall jëwriñ ni Serigne moo deminta Serigne Moustapha Fall Mbar ak njaboot gi yëpp ak Serigne Assane mu Serigne Mour Moustapha Fall def délégation ànd ak taalib yëpp ak buntu kër Cheikh Rafal yëpp nag ñëw ngir indi liggéey bu tedd indi ko ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fal la ilaha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 Ibrahima Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu ànd rakkam yëpp mu ànd ak rakkam yëpp ak doomam yëpp ak doomam yëpp ak taalibe yëpp ak taalibe yëpp waaye ki teew fii nga xam ne moo njiital rakk waaye ki teew fii nag nga moo njiital rakk yi mooy sëriñ Cheikh Fall mii mooy sëriñ Cheikh Fall mii ñu di ko wax sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng Baye Assane Fall a ngi nii Baye Assane Fall a ngi nii moom Cheikh Moustapha Fall moom Cheikh Moustapha Fall Serigne Saliou woo nga ne Serigne Saliou woo nga ne Serigne Modou ngi nii Serigne Cheikh Mbacke Fall a ngi nii moom Cheikh Modou Moustapha Fall moom Cheikh kii Serigne Abdou Aziz doomi Serigne Modou Ablaye nee mun noo ñoo tudd ñëpp waaye ginnaaw tudd nañ ñii nag kon Serigne Cheikh nee ak siyaar bii mi koy defal njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp nee fa boppam nag jiital ca di yeesalaat ak njébbalam di feddliwaat ak laxasaayam di jaayantewaat bu baax a baax nag fas yéene ànd ak yow ci liggéey bii nga liggéeyal sa maam fas yéene foo teg sa tànk boo geesoo gis ko fas yéene ànd ak yow ci liggéey bu baax a baax nee ci jiital ki nga xam nag liggéeyu tabaski bii nga xam ni. ndigalul suñu borom la mu jaar ci sallallahu alayhi ñëw ci sunu maam Ibrahima ji ñëw ci sunu maam Jibril ba ñëw ci bokkam yam àndaloon moom la ñuy yeesalaat nee liggéey bii ñu fi indi tey jii juróom benn téeméeri xar la sëñ Cheikh Jëmb Fall nee na xeeb na ko lool waaye pasteef bi ak pas-pas bi ak yéene ji moom rek moo ci am solo te xam naa la mu yéene ci xolam mooy fu am xar taxaw tey ci àdduna mu moom ko jox ko Serigne Touba mi fi toog loolu mooy yéene Serigne Cheikh Jimb Fall kon nee na liggéey bii nan ko ko nungul Mbàkke te ko ko te defal ko ci nag ak njéggal ak yërmande ak ndimbal nga xam ne loolu ko ko am rek am nga lépp nee li ñu gën a bëgg nag mooy ñu am sa ngërëm rek bu ñu amee sa ngërëm rek am nan ngërëmul Serigne Touba kon nag Mbàkke nag ñu dimbali. ban am sa ngërëm yow tam Mbàkke ñu lay ñaanal ci darajey sa darajey maam ja sëriñ Touba ak maami sëriñ Cheikh Jimba Fall ja muy maam Cheikh Ibrahima Fall jataay bii nga toog a sëriñ Touba nga yàgg ci lool Mbàkke te ànd ku wér nag ba lépp loo sémbal sa maam nga àggaleel ko sa bopp mën koo eggaleloo kenn sémb yu baree bari nag ca ànd ak murit yëpp nag ak jullit yëpp nee ñi ngi jéggulu nag kàddu yi mu yëkkati ci kanamu sëriñ bi ndax am murit kat daa war a mel ni am néew ca loxoy way sang ya nga xam ne du leen aay benn cëram doo xam waxtu fu ñu koy sang doo xam fu ñu koy suul kon nag murit moom bu teewee fi kanamu sëriñam kàddu gum yëkkati ca du kàddu ndigal kàddu mooy la waaye kàddu gum yëkkati nag ca muy kàddu ndigal nag loolu ak topp la kon liggéey lii dañuy topp rek dañuy topp ndigal rek nan ñu dimbali nag saxal ñu ci baatum ndigal bi ñu mën caa nekk di ko jëfe te lu nuy tere lu ne ñu bañ ñu faa séen waxuma laa di ko jëfe nag kon nag Mbàkke jërëjëf sëriñ Moustapha Fall Falilou nag mi ngi nii nee na bu sëriñ Fall nuyoo moom nuyoo na sëriñ Fall nee liggéey bi nag Mbàkke ni mu toll nii yàgg na koo doon da daan doon luy ñëw fii am lu dem njaareem la daan dem njaareem demaat na njaareem mooy ñaar fukk ak juróom-ñett yi dem loolu fi la ko Cheikh Rafal bàyyi woon ñu daan ko def lim bii moo yokk waaye lee bee moom yàgg na lool ñaar fukk ak juróom-ñett liggéey bi mi ngi nii kon nag mbakke nag ñu ñaanal nii àdduna bépp am jàmm mbas mii fi ne la waxoon rek ndawal suñu borom la luñ ciy def rek sa jëmm jiyee tax ñu koy def yow mi leen bëgg Mbàkke loo digle ànd nañ ci yow ca am nan yaakaar ci bu baax itam lii dafiy jóge léegi dañ koy dégg rek kon nag sunu borom yàlla na la fi doolee yàggal ci barke barkeb Serigne Touba barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi sant bu baax mbàkk cay gërëm di jéglu bu baax nag di jéglu bu baax nag waaw sëñ Cheikh nee na jërëjëf Fall kàddu yi rafet na lool. gën nañu soññ suñu bopp sëñ bu mag bi nee gën nañoo bëggati suñu bopp. jërëjëf foofu rek la nekk. suñu xel seet bu yàgg. suñu xel seen xel dal na bu yàgg. jërë ngeen jëf. jërë jëf ñoo ngi sant di gërëm. te te xam nañ sant di gërëm moo leen fi nekkal. ak ñaan nag. loolu la yokku teg loolu la. mi ngi mi ngi teg ñëpp toll. la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 kon euh, mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant euh, waa Lamp Fall waaye di sant itam Assalaamy TV ci taxawaay yu am solo yi nga xam ni euh, taxaw nañ ko jàpp ci liggéey bi Cheikh Ibra Fall mi ngeen di sotle si yàlla leen taxawul boppam ci barke maam Cheikh Ibra Fall ndax xam nga wane gi liggéey bi dafa am solo ndax dina tax ki defoon benn fexe ba def ñaar ndax kaddu Cheikh Mouhamadou Mountakha kaddu soññe la Euh, kaddu yi sëriñ Fallilou Fall jëwriñ sëriñ Modou te kaddu soññee la yoo xamante ne bii mënta ñàkk su jibee ki ko dégg te di murit dana ko soññ ba lépp loo xam ne defoon na ko bi ñu koy wone loolu rek lañ ci soññ di jaajëfal baax ci taxawaay yu am solo yi di ñaan yàlla jëf ji daal jëfi Cheikh na ñu yóbbaale ndax Cheikh ko audit su ko defee ñu man cee jàllaale ba la sëñ Tuubaa wax ne eh, Ibra ma rëcc na fa ma ko sànni ba fa xaayikoon bu ëllëg xam du suuf te foofu kenn xam fu doon te maa ngi fàtte sëñ Abdou Baax yi mun Muntaxa daaw biñ ko jëbalee liggéey bi fii daf na wax ne lim gëm moom te jàpp ko mooy li suñ borom dig li suñ borom dig jullit ñi ci ak payor fam leen yemale fa lay tàmbaleeg Cheikh Ibra kon Cheikh Ibra moom kenn xamul fan la waaye waxi ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim keroog bi am ku ko ne ca njaarim na ko Mbàkke defal ma ma mel ni Ibra Fall sëñ Touba def na ko xanaa xamoon ne da ngaa xir waaye li nga am doy na ndax Ibra Fall da def ma rëcc fa ma ko sànni bu fa xayi ko woon ba ëllëg yoo yomal xëyam laal suuf foofa nag kenn xamul fu mu doon kon ñoo ngi ñaan yàlla ñu nit ñu ànd ak Cheikh Rafal dem foofu ba faaw rek jaa ngeen jëf